Euh, euh, émission par rapport à la task force. waaw maa ngi dem waaw ñu ñëw si task force par rapport à la mm. bi bu ko président la république mettre sur place dafa war. Mm. parce que ay Aïssatou man maa yoroon ko gère doon évoluer ci ndaw ñi entre temps ma jóge fa bu ma fa jógee à part sama commune Diarère ak li may yëngatu ci jigéenu département Fatick. ak xëy na mouvement national des femmes la ma cay yëngatu chance boobu ma am am na ñu bëri ci suñu groupe googu ñoo xamante ne tey amuñu réceptacle dans le parti pour mun a faire vivre seen militantisme ak pour mun a continuer accompagner président Macky te ñoo xamante ne dañu am ay talent ñoo xamante ne xam nañ lu ñuy def xam nañ lu ñuy wax mm-hmm. donc apport yu ñu am si seen direction yi dañoo war a continuer aussi am apport boobu ci parti bi léegi nag. parti bi am na ay structures yoo xamante ne c'est les structures régulières du parti mm. mais ça n'empêche aux euh, à des militants du parti de s'organiser de façon très légère pour apporter seen contribution mm, man noonu laa ko jàppee te bu doon loo xam ne président Macky Sall àndu ca man dooma ca gis mm. te xam naa ne bu doon loo xam ne président Macky Sall àndu ca aussi dul sax am ba ay cabinet ak ñeneen ak ñeneen di ñëw di toog ñu ciy wax ba presse bi di ci jot mais xam nga euh, euh, ci task force bi nga jeexal. nee nga euh, task force bi am na onction la benn bénédiction président Macky Sall ndaxte cabinet mi ñu ngi fa. ci ci seen gegeer yéen waa APR ak. Hmm. ma ni bi ngeen meroo seen biir bëgg démb Ndiaye ñëpp dañoo dañoo jaaxle ci kaddu yi Mame Mbaye Niang yëkkati dóor ko mu sale te yooyu. ñooñ hmm. ñooñ ñoo seq kii chef de cabinet la. quel est d'être cabinet politique euh, loolu euh, euh, comme li wax tout le temps ne président Macky Sall moom du àtte xeex ku mën a falaat <laughs> ñooñu nga xam ne ñoo seq cabinet ñu ñu ñu ñuy ñuy màttante publiquement mais loolu quand même ban image lay renvoyé ci këleen jiite du président Macky Sall waa loolu moom man saluer wu ma ko Mame sama frère la ah. mm-hmm. dañuy wax dañuy waxtaan sama sama frère la Euh, Mahmoud Sall aussi mag la nekk ci parti bi di liggéey liggéey bu am solo di régler lu bëri ci parti bi nag loo xam ne du ci sax soxla feeñ mhm. donc euh, man li ma la wax léegi ci bi nga touché question gouvernement bi moom laay waxaat man décision président mag Sall du ma ko commenté ba di ci jël ay décision ay ay ay kii ay décision mhm. donc leneen li tamit mooy ñoom ñaar bu ñu juboowee te man sax gisuma fa xuloo mhm. parce que parce que benn instant euh, état dafa am lu mu organiser woo le directeur de cabinet du président de la république à un certain niveau mun ta am problème avec le chef de cabinet du président de la république donc lépp lu ci mënta nekk aussi man dama jàpp ne rek ku ci mën a dox tànk jàmm dox ko ci parce que li am barke démb dafa rafet président Macky Sall wóolu président Cissé Lo ñu toog waxtaan jubo ne ñay instant bi APR fu mu toll jàmm rek moo ñu mën a sauver ñun ñëpp te loolu tamit il faut ñu xam ko parce que tey lu ñuy naan nguur àndul ak coow lu ñuy naan aussi euh, gestion du pouvoir dafa war a ànd ak sérénité mais kilifa gi aussi ñun dañ koo war a may xel bu dal ba tax na tey jii nii man dama jàpp ne que rek ku nekk bu nekkee ci logic am tant que mu ngi nekk ci logique boo xam ne day avancer loo dynamique bi nga xam moom la président yëkkati kenn amul droit freiné ko mhm. man loolu laa gëm d'accord léegi euh, euh, pour ñu jeexal ci Idrissa Seck mhm. bëgg démb ñu euh, euh, bëri euh, ñu ngi ñu ngi doon gis les démons du passé ñu ñu ñu ñu yeewuwaat ba mu félicité américaine boobu di Cecilia Rouse ñi nga xam ne moo jiite institution bu ñu mën a méngale lekk CESE ñu bëri jàpp ne loolu du du cëram et que est-ce que nekkul di di di di di togg Euh, li nga xam ne moom la ñuy tuddee dualité au sommet mooy kii président. loolu dafa teel loolu dafa teel nit ñi di ko xalaat. loolu dafa teel nit ñi di ko xalaat yow ah coow la nga dégg foofu. Euh, hmm. ñu bëri jàpp ne bourde la bourde monumental la fa def. loolu man nag Aïssatou man damay positiver tout le temps. Hmm. damay positiver xam nga damay positiver. Hmm. Euh, est-ce que nekkul na ñoom ñaar amoon nañu relation boo xam ne yow xamoo ko man xaw ma ko. est-ce que amuñu relation amicale wala fraternelle wala et cetera loo xam ne il peut se permettre féliciter ko. man nommé nañ fi première ministre Gabon Rose nga xam ne dañoo bokkoon suñu CGLU suñu REFELA le réseau des jeunes femmes des des femmes élues d'Afrique ma xamee ko fa bañ ko nommé premier ministre dama ko féliciter sama page Facebook. parce que dama ko xamoon. bu fekkente ni Idrissa Seck dafa amoon relation ak kooku aussi wala bu fekkee ne ñoom ñaar ay président d'institution la mais am na droit je pense féliciter ko. man loolu aw ci problème te beneen affaire bi nga xamante ne Idrissa Seck def na ko récemment. CICAD euh, bi confirmé ne que dualité boobu mënul am mais Idrissa Seck devant le président la République il n'a pas hésité de se lever pour tàccul ko applaudir ko confirmer lu muy def. Mm-hmm. loolu xëy na am na ñu ko gisee ne que dafa wàccee boppam mais du loolu parce que nit bu fekkee ne da nga kontaan ci par rapport ak li kilifa wax. tu as plusieurs façons de d'exprimer en tout cas sa sa sa joie. Mm-hmm. bu la neexee nga toog tàccu bu la neexee nga jóg tàccu bu la neexee nga yëngal bopp bu la neexee nga def leneen aay nag Thérèse na yow non non Thérèse na <laughs> yow Thérèse yow gis naa vraiment Thérèse tu es formidable léegi euh, non non non foofu moom bu la c'est simple affaire yi non non boo dee sama xarit bu ñu la faloon président de la république sax su ma la su ma neexee man en tant que sénégalais sam ma félicité la mais mais ko aay nga léegi lii nag Euh, candidature président Macky Sall troisième bi euh, euh, jaadu na wala jaaduwul. dañ ko koy yéene. yow yaa ko dañ ko koy yéene maa la ko njëkk a laaj. <laughs> nga fàttali ma posé question yaa ko tudd. ça veut dire que intérieurement dañ ko koy yéene. fay aay nga. non bu fekkee dañ ko koy yéene dama la ciy fekk rek. candidature bi. Ah. xam nga yéen journalistes yi yéen ñu ci sonal. parce que bu fekkente ne président nee bu ci kenn waxati. je pense que yéen ci seen bopp yéen a ko waroon génnee sax ci seen protocole interview yi. bu yàlla sàkk sa gars yi taxaw léegi ñu xew sa mooy. dinaa Macky Sall euh, condition may na ko mu def ko saa yu ko neexee mu def ko mais loolu moo tax xam nga question bu simple laa la ma la léegi wuyu ma waaw léegi la la ma la ma tontu woon Fatick. Hmm. parce que am na say confrères yu ma ko laajoon. Hmm. Euh, loolu rek laay waxaat bu ñu nee Thérèse lan mooy sa yéene. mën naa wax li sama xol. mooy su ma sañoon président Macky Sall toogaat fi. waxuma benn mandat de. beneen ak beneen parce que par rapport ak moom lu muy liggéeyal réew mi. mais tamit loolu ça n'a rien à voir ak suñuy charte réew. lan lay joxe par rapport à loolu charte réew bi du ma juriste. Ah. mënuma ne lii ak lii la ciy wax. mais li ma la mën a wax mooy am naa sama sañ-sañ. wax li ne sama xol. léegi man léegi man ma laajaat la ko neneen. waaw mooy euh, président Macky Sall d'accord mën nga compter université yaa euh, ay finance hmm. bii ma deuxième et dernier mandat ba tey dama lay tontuwaat rek ci constitution bi waaw ci constitution bi. Hmm. ba tey ci laa lay delloowaat. Hmm. le moment venu ñoom dinañ ko waxal seen bopp. mais bu dee man sama yéen rek bu doon man maay décider. Mm. waxuma waxu waxuma troisième wala quatrième wala leneen mais damay jàpp nekk rek tant que moom yoonam gii mu nekk ay satu ñun ci kaw ga lañ jóge bugguma sax dugg ci loolu parce que émission baa ngi jeex ñaata dëkk la ñuy am ndox courant PUDC jigéen ñi di ci gis seen bopp dama koy wax. déedéet non non non Birame bi Birame dafa teel Birame bilan xaaral mais bilan bee tax ñu falaat ko bul fàtte loolu. ci deux mille euh, kii bii ñu jógee. bilan moom da koo am ba Sénégalais évolué ko ba jox ko ko.